yéen kaay gi di direct news ñu koy fekk fa El Hadj Dia responsable politique APR ca Bambey daan nay félicité Idrissa Seck ci ñëw gi nga xam ne ñëw na ko ci wetu président Macky Sall ngir ñu liggéeyal réew mi moom El Hadj Dia wax ne leader politique yi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi dañoo war a ñëw rejoindre président ngir nag ñu liggéey réew mi ndax jamonoy coronavirus ak jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum économie la ñu am moom El Hadj ñu laaj ko ci lu jëm ci Macky Sall su bëggee présenté waat 2024 nee na loolee su neexee Macky Sall rek moom neex na ko ma ci wetam te li nga xam ne mooy ay défi yoo xam ne président Macky Sall bëgg na ko relever ngir saafara jafe-jafe askan wi mënuma ma see banque sama loxo wax na ci Covid 19 bi ak junni junni mille masques yi nga xam ne séddale na ko askanu Bambey ak lu jëm ci wàllum dund.